yaa jageen jëf mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyee xel ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar fii ci Touba Mbacké ñu fas yéene ànd ak ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi lépp loo xam ne day bàyyeekoo ci bërëb bu sell bi di Touba ñu leen koy jox xibaar yi nag dañ koy dooree koor gi nga xam ne door nañ ko fii ci euh, Sénégal ak ci Touba Mbacké Euh, juróom-ñaari fan euh, ci weeru mai atum 2019 dëppoo benn fan ci euh, ramadan atum 1440 ginnaaw gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne nag moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir demoon na ci jumaay Touba ji teewee naafila gu njëkk gi dem julli fa gee moom nag ak yenn kilifa yu bëree bëri ñëw nañ fa ak i taalibe bàyyi ko fu ne mbooloo mu takko takko ñëw ngir teewe li nga xam ne moom moo di naafila gu njëkk gi ci jumaay Tuubaa ji ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir yëkkati na ko fa doon soññaat ñi nga xam ne ñoo di jullit yi ñu gën a farlu ci li nga xam ne mooy weeru koor gi. asalaamu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax a ziyaare gan gu mag sant sun sant suñu borom bu baax ci fe niñ ko fekkee tee te nag nu gën a góorgóorlu bu baax gën ko waajal waajal gi moom mm, mm, wërta jafe ndax xamees na sëñ bi léppi boroom la fonk waaye jag amoon na ci amoon wutal loolu na xaas weer wu tedd wu rëy def naa ñëpp xawar nañ ko xam kon war nañ ko gën waajal bu baax a baax a baax a baax kem kàttan waajal gi nag eh, nu gën a fas nekk ci li war a nekk rek góorgóorlu bu baax a baax suñu gën a fonk suñu diine góorgóorlu bu baax a baax a baax suñu gën a fonk suñu taalibe te góorgóorlu bu baax nag ci eh, di yokk suñu yitte lu nu am am yitte ak lu nu rëy doyut nan gën a fonk suñu diine bu baax gën a yokk suñu yitte gën a fonk suñu taalibe te góorgóorlu bu baax moo tax ndiku càggante mel na ne lu daal rek eh, càggante nu ko teg waaye sëriñ bi moom fàggal nañu lépp lépp luy am njëriñ tey ëllëg fàggul nañu ko ba noppi kon nag jëggani wunu fenn dara lépp sëriñ bi bàyyi na ko fi li ci des mooy góorgóorlu rek lu witti ji yi nga xeeb ko jëm ko dolli lu càggante gi tuuti tuuti tuuti mu rëy fi yow gën koo daw sax lu bakkan mu nekkoon kàddu yi Cheikh mun taxa Mbacké Bachir yi nga xam ne taataan nañ ko ci moom ci jumaay Tuubaa ji doon son ñaat ñi nga xam ne ñoo di julliyee jullit yi ak taalibe yi ñu gën a farlu ci weer yi nga xam ne moom lañ nekk muy euh, weeru koor ba léegi ci xibaar yi ci jumaay Tuubaa ji la ñuy des ndax daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci organisation jumaa ji ni nga xam ne noonu lañ koy defee at mu jot li nga xam ne moom moo di conférence ñuy organisé ci biir jumaa ji loolee ginnaaw tàkkusaan lay door ñu jël nag ay thèmes yu bëree bëri yoo xamante ni ak i borom xam-xam kenn ku ci nekk ñu la benn thème boo xamante ni da nga ci waxtaan waaye ay question yoo xam ne daañ ko posé loole di jaar ci li xamante ni moom moo di euh, WhatsApp wala nga envoyé message ngir laaj laaj bi nga xam ne moom nga bëgg laaj ginnaaw bi ñu defee conférence bi euh, ñoom ñu tontu ci ñu ànd ak ki nga xam ne moo di sëñ Assane Mbengue kenn la ci ñi nga xam ne ñoo yore culture euh, daayira Muxaddamatul Xidma ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu jël ci ni nga xam ne noonu la ñu organisé waxtaan yooyu la ci jumaay Tuubaa ku ne xam na ne daayira bi amoon na ndigal ci Cheikh Salih Mbacke ngir mu taxawee koor gi ci biir jumaa ji ci ay bernde yoo xam ne bernde yaram la léegi nag euh, ci la daayira bi xalaate ne bernde yooyu. Euh, bernde yaram yooyu warees na ko euh, dundalee yeneeni bernde yoo xam ne bernde yi ruu la muy ay waxtaan ci lañ dénk commission culturelle bi ngir muy taxawee eh, ay waxtaan diirub weeru koor wi ci jumaa ji maanaam bis bu ne bis bu ne dinañ fi amal waxtaan eh, ci biir jumaa ji waxtaan yi nag day tàmbali cinq heures et demi eh, ba ba ñuy bëgg a dog ci lu tollook ñaar fukki minutes thèmes yooyu nag euh, thèmes yu fasantikoo lay doon euh, dana ci bokk ay thèmes yu jamononte yoo xam ne yu dëppook jamono lay doon waaye itam dana ci bokk ay duruus muy ay bind yoo xam ne euh, dañ ci fàttalanteeg nit ñi e, ci njàngale moo xamante ne mu suufe lay doon mu jege nga xam ne nit ñi danañ ko mën a jëfe e, suñ fa jógee rek waaye itam danañ ci boole ay e, fataawa yoo xam ne ay laaj ak i tontu la lu waaye jaaxle ci diine e, bu ko laajee rek am nañ fi ay borom xam-xam yoo xamante ne bi ñu seen xam-xam màcc ci wàllu googu la ñoom ñooy taxawee loolu. waxtaan yooyu nag e, comme ni ma ko waxee léegi lii jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy nit ñi mën a xam lépp loo xamante ne bi dafa aju ci e, seen diine. ñu koy ubbee nag ci loo xam ne ci koor la jëm ginnaaw ci koor lañ nekk ñu koy ubbee loo xam ne ci koor la jëm. waaye itam noonu ma ko waxee léegi dina am ay yeneeni waxtaan yoo xamante ne bi ci fànn yu nekk lay. mu nekkoon kàddu yi Serigne Assane Mbengue mi nga xam ne kenn la ci ñi yore culture daayira Muxaddamatul Xidma doon ñëwaat ci conférence yi nga xam ne moom la ñuy organiser ci jumaay Tuubaa ji ci diirug weeru koor gi. waaye ni ngeen ko xamee ni ki daaw euh, lañ ko dooroon muy njàng mi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci résidence Khadim Rasoul ci teewaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ànd ko waa daara Hizbut Tarqiyyah ak mboolem taalibe yi ak kilifa yi mu nekk njàng moo xam ne Serigne bi da koy teewee. ginnaaw takkusaan fii ci salle bi nga xam ne fi lañ nekk nii mu nekk loo xam ne nag sëriñ bi teewee na ko waaye nag lu ni mel laaj na organisation ak dispositif bu am solo boo xam ne war nañ koo jël ci lu ni mel ki nga xam ne moo di sëriñ Youssou Diop kenn ci jëwriñ yi nga xam ne dafa nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah yëkkati na kàddu ci dispositif yi nga xam ne ak aménagement yi nga xam ne def nañ ko mu jëm ci organisation li nga xam ne moo di weeru koor gi ci prestation kuréel yi nga xam ne mooy am fii ci résidence Khadim Rasoul weeru koor sëriñ Touba da ko fonkaloon boppam muy weer woo xam ne weeru yërmande la weeru njëgal la weeru mucc la weeru goreel ci ci sawara la weer la woo xamante ne iblis sax dañ koy tëj loolu kon suñ ci amee tew feex yi sëriñ bii nga xam ne moom la ñu yaakaar àdduna ak na muy toog di teew teewlu xasida yi di ñu fàttaliwaat njaareem yu jëkk ja na ko sëriñ Tuubaa daan defee kooku moom investissement sans réserve investissement sans réserve mooy aménagement da ngay teel a tàmbali teel a ñëw occuper terrain bi loolu yàlla dimbali nañu ba def nañ ko euh, aménagement et installation ñooy ànd côté électricité lépp doo bàyyi dara dispositif de sonorisation noonu yeneen yi nga xamante ne moo jëm ci pavoisement et décoration ci la bokk sécurité ci la bokk ndax tey jii sëriñ bi fi muy jaar képp dañ koy sécuriser boobu muy agsi fi muy toog dañ koy sécuriser ñu muy àndal kilifa yi fa ñu toog loolu tamit am na ay waaj caay yoo xam ne côté aménagement la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko xoolee lu yaatu la euh, ndog yi door a ñëw bu fekkee mbooloo bi ñëw nañu ni ñu leen di war a toppatoo loolu grand public bi ba ci fa kilifa yi ne kon ay banqaas yi liggéey la yoo xam ne boo ci jël ay kuréel la ko seq yoo xam ne teel nañoo waajal te it dañu tàmbalee liggéey ci bilan wu daaw maanaam boo tàmbalee liggéey ci sa bilan wu daaw lu ca sooxe woon ni nga ko xam lu ca awoon yoon ni nga ko xam kon sooy defaat ren day tax mu gën a mën a Euh, yéwén ñuy sant itam ginnaaw ku tedd ki nga xam ne moom euh, moo ñu moo ñu defal fursa bi boo ñu may tawféex yi njabootam jépp da ngay gis ne kenn ku ci ne euh, dangay wane ne du ma nangu ngeen gën ma koo bëgg du ma nangu ngeen gën ma cee jeex loolu mooy njabootu sëñ Tuubaa yëpp boo fi gisee gis na njabootu sëñ Mourou Sawa sëñ Fallou ba ci sëñ Mouhamadou Moutala kenn du des ba ci Daaru Muxti kilifa yi ñu ngi ñëw di wettali sëriñ bi ci lii nga xam ne pas-pasam la yóbbaale yoonu murit bépp kon defe naa dong itam euh, kenn desut waaye li ci am solo rek ñu xam ne salle bi moom dafa am capacité contenance ginnaaw kuréel yi mbooloo bi moom euh, déglu ak teewlu xaside yi ak ñaan suñu borom nangul la loolu dafa am loolu dafa am sart sart yi mooy yar ak teggin nekkoon kàddu yi Serigne Youssou Diop euh, ci euh, li nga xam ne moo di matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci euh, njàng mi nga xam ne dañ koy amal fii ci résidence Khadimou Rasoul ci kàddoom yooyu la ñuy tëjee xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi ci bërëb bu sell bii di Touba ñu leen di wax rek ne bés yàlla sàkk incha allah daañu ànd ak yéen lépp loo xam ne day bàyyeekoo fii ci résidence Khadimou Rasoul ci jumaay Touba ji ci bërëb bu sell bii di tubaa lépp rek ñu baaxee ko ñi nga xam ne ñoo di mbokki taalibe yi ñu mën a xam li nga xam ne mooy xew ci bërëb bu sell bi ci diirub weeru koor gi sant leen gërëm leen ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.